liggéey bi rek mooy fomm le temps que ñu daal di jàppaat beneen date. waaw loolu Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu métti te loolu nag boo ci jógee day doon loo xam ne suñu raadu Sénégal dina gën a dossier nak jëmale euh, ci euh, impact euh, ci crise économique bi nga xamantene ne laal na ñenn ci suñuy mbokk taskatu xibaar ak acteuru média yi bu ñenn ñi nak amé ay jafé jafé ñeneen ñi jotuñu woon a signé ay partenariat jotuñu woon a dégager budget des deux côtés mais entre temps amna une dame bu ñu fi dab une dame de fer d'ailleurs et puis elle fait partie elle est la première dame à être accueilli euh, sur le plateau du rendez-vous manqué euh, Aïda Sopignon ñu le lay de di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi. Euh, maa ngi leen di fay di leen jaajëfal di leen remercier ci invitation bi di nuyu sama camarade yi ma fekk ci ci plateau bi di ñaan yàlla débat bu bu am solo malheureusement nous sommes en deuil électoral. Mhm. tey xam ni xol yi neexul mais ñu yaakaar ni dinañ fi mën a lu jëriñ askan looloo tax sax euh, euh, Global TV ñëwaat tey ci li nga xamante ne moom moo naroon nekk bisu élection bi ngir rek euh, téléspectateurs yi daal di sentir ne bisub tey bisub élection la naam la woon naam même bu fekkee ne manqué na dinañ def plateau spécial ñëwaat ci rendez bi nga xamante ne rendez-vous manqué la indiwaat solos li nga xamante ne nag moom moo waroon nekk jongante bi tey kon tey doyen ñu gis ne suñu mbokk taskatu xibaar yi crise économique bi laal na leen laal boo xamante ne metti na ben ben côté ñenn ci ñom dégager won nañ ben budget bu am solo ngir rek jëmele ci campagne élection présidentielle ndax xam nañ né euh, groupe de presse euh, bu campagne jotee ku ci nek di nga yebal sa équipe mu top ab candidat waye do ko bàyyi ak loxoy yi ndax di nga am lo tek ci loxom ngir rek mën ko soutenir financièrement ci ay déplacement ak hébergement ak restauration ñeneen ñi euh, doon profito am ay partenaires ak ay convention yu ñuy euh, signé ak yenn investisseurs rek euh, yenn yenn yenn entreprise yo xamantene dañu dañoo bëggoon jàllale publicité mu nekk ñaari côté yo xamantene même bu féké metti wul ci ñenn ñi jotul signé nekk na lo xamantene ne laal nañu ñun presse bi. waaw xam nga xam nga lolu té xam nga dafa am ben affaire bo xam sax dafa nekk particularité ci élection yi ñu doon jëm moy on avait 20 candidats.

Euh, li nekk ci groupe de presse yi déjà bu fekkee yow da nga amoon benn parc automobile maanaam benn kii loo xam ne automobile la bu élection jubsee au moins sa oto yi da nga leen yóbbuwaat révision da nga yaa un boo ciy def beneen bi dana am ñoo xam ne tu es nga jëndaat bu dee matériel bi nga xam ne moom nga yor par exemple muy ay caméra ak ay nangam nangam il faut nga yokk li nga yor c'est un investissement bu fekkee ne aussi da nga da nga doon loo xam ne da ngay wut ay correspondant ci zone yoo xam ne amoo ko woon am ci par exemple bu fekkone ne amuñu woon comme légui xarala yu bees yi dafa xew amna ci bëri bu période bi am ci bëri ñu basculer commencer wut ay ay chaîne YouTube ak yu pour suivre suivre campagne bi té lu ci bëri ñu ci bëri dañu am ay convention de partenariat ak yenn candidats yi té bu élection amul xam nga lool day tomber à l'eau investissement bi nga xamone def nga ko day à Euh, aussi il fallait nga defar équipe yoo xam ne yaa a des réunions yoo xam ne dañ ko tenir ci rédaction yi xool nan la ñuy def nan la ñuy couvrir campagne boobu ba léegi nga nekk ci même période bi ngay def réunion yooyu y a un investissement booy def ndax nit ñi boo leen bëggee téye en dehors des heures de travail réunion yeeg yooyu yëpp yaa a un investissement à faire finalement dépense d'énergie la ci ci presse bi perte d'argent la ci ak lo xamné journaliste ku xam ko xam xamné mom information moy matière première am aussi c'était un moment bo xamné presse bi dañ ci daan def ay liguey yu am solo yo xamné am ci ñenn ño xamné dañu envoyé won seen yenn journaliste ak yoy ñu dem def ji ay formation ci comment couvrir les élections yoy donc finalement lool lepp presque li dal agence de com yi ak concessionnaire auto yi ñun moo ñu dal mmh. te surtout nga xol ne ñun bi euh, crise politique bi amé mu mu mu am un impact économique dafa am ko beneen côté boo xam ne tam dafa dal suñ kaw parce que ku wax journalisme ku wax presse wax xarala yu bees. Mhm. parce que déjà ñun suñu liggéey internet daf ci am solo bu rëy a rëy te am na fi ay jours yoo xam ne dañ ko coupé. am na direct yoo xam ne ñu ko war a def mu sooxeel suñu liggéey ci lu baree baree bare te des fois booy demati ci yu mel nii des fois da ngay am comme ni nga ko waxee ay convention de partenariat ak yenn entreprise yi pour yu mag yi mu am ay insertion publicitaire yu ci war a am te loolu lépp. finalement nit ñi dañuy dañuy presse bi donc dañ koy perte. am na am na loo cité léegi lu am solo doyen euh, lu concerne nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy grisaille bi nekk ci secteur euh, communication waaye tamit concessionnaire oto yi. am nañ ci ab élément boo xamante ne Aïssatou Ba defal nañu ci ab reportage ñu teew lu ko dellusiwaat. couverture loolu yëpp. At biñu Adjani, jongante présidentiel yi nga xamante ne na am ñaar fukki fan ak ci weeru février biñu nek nekk jur na ay jafe-jafe ci kom koomu réew mi ci loolu kat yi nga xamante ne ñoy yëngu ci lépp luy wàllub defar t-shirt casquette affiche waaye itam ñi nga xamante ne ñoy yëngu ci jaay ak luye auto am nañ jafé jafé ngir rek mëna a gérer contrat yi nga xamante nañ ko signé ak candidat yi kenn si ñu njiite yi kay am ñuy xamal ne yàq-yàqu yi am na doole. bëri na ay yàqu-yàqu man sax même bu dul ci man gis naa ci benn imprimerie boo xam ne lim tiire doon candidat bi dafa bari te lépp vingt cinq février lañ déggoon te def plus de valeur de millions et quelque man gis naa ko te acompte cinquante pour cent loolu la ko joxoon mais finalement pour mu jotaat xaalisam sax problème la bon je vais pas citer le nom de candidat gis naa ko parce que man réseau bi ci laa nekk quoi bon mooy yi suñu mooy bopp rek xam nga ñun moom état accompagné du ñu accompagné keneen accompagné wu suñu moyen bopp lañ jël ànd suñu groupe ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey ak Lango jéem a xool difficulté bi. métti na naka lañ koy résoudre suñu biir à l'intérieur mais yaakaaruñ ci nguur yaakaaruñ ci keneen ah, parce que jàppale ñu ci benn côté bu ñëw rek suñ kaw lay daanu mais ñun ñooy xool à l'interne naka lañ koy mën a gérer suñu biir après ñu avancé nekk ci la rek mais xaar ci ñoom parce que xam nañ lu ñu jàppale te suñu jàppale. te sax bu ñu mayul investissement yi nga xamante ne jot nañ koo amal dina rek daa dee naax saay ah le report des élections a eu un impact négatif sur le travail. waaye jour na ay gàllankoor nak ci suñu liggéey ndax jotoon nañu dugal suñu ay koppar ci commande yi jamono ji nak ñu ngi jéem a xool ñuy def ba gérer commande ñu yaqku yàqu-yàqu yi sur le rendement sur les remboursements et sur les engagements qu'on a fait à l'égard de nos clients. ñi nga xamante ne itam ñooy yëngu ci lépp luy wàllub jaay ak luy woto yëg nañ yi la jafe-jafe bu baax a baax gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi génnee xaalis bu takk ngir remboursé contrat yi nga xam ne jot nañ ko jël. am na sax ñoo joxe seen xaalis sax pour mu may leen oto ñu pare sax après ku nekk dem ko delloo nekk na trop am oto yi képp nekk dafa amoon date si sama budget bu baax sax je vais développer beaucoup de temps dama jëndee oto pour location was no jërëjëf Aïssatou Ba moom it mu defal ñu ab euh, élément euh, concernant li nga xamante ne nag moom euh, crise économique bi laal concessionnaire de voiture ak lépp lu seexal wàllum secteur de la communication xam naa nag ci élément bu njëkk bi la ñuy dooree ak suñu spécialiste di Famara Ibrahim Cissé kii di Ibrahima Lissa Faye nekk njiitu CAP wëlbatiku tamit nekk propriétaire bu Presse Afrique xam le na ne li mu perte toll nag 8 millions ci lo xamantene ne euh, jëmoon ci campagne élection présidentielle bi naka nga mëna jangaté crise économique bi ni mu que li nga xamantene mom le secteur des médias. mais xam nga euh, secteur des médias c'est vrai laal bu parce que des prévisions étaient étaient en train euh, d'être faites mais même imprimerie parce que bëroon na ay commandes yo xamné ne nañ ko fa mais malheureusement mënta antu actuellement xam nga euh, période élection période de forte croissance la de forte expansion économique la parce que euh, vingt candidats wax nga ko sànq yoo xam ne dañoo war a dem ci gox goxaan yi gox goxaan yooyu sax bu ñu fa demee da leen di suqali en réalité parce que jaaykat bi jaaykatu gerte caaf ba jour ba dina mën a jaay parce que luweekatu chaise ba dana mën a luwe luweekatu bâche ba dana mën a luwe euh, bâche bache bâche am hôtel yi nekkoon foofu nga xam ne pour ñu gis sax ku fa dugg problème la danañ mën a accueillir du monde donc c' est une période de forte expansion économique. surtout que nga xam dafa ànd ak folklore acteur culturel tamit dañ ci gis seen bopp effectivement c' est des moments de de de de de de de euh, de passion yoo xam ne jeunesse bi dañuy génn famille dañuy génn même ñawkatu yëre yi dañuy dem di ñaw ay yëre yoo xam ne pour candidat bi la donc c' est une période économique boo xam ne waruñu koo raté suñu croissance euh, waroon nañ ko rattraper foofu nono ci moment boobu mais malheureusement bu crise amee boo xam ne report moo ko mais loolu yëpp ça sera dans l'eau ay pertes énormes des manques à gagner énormes la ñuy donc moo tax euh, nañu xam ne fi mu toll nii euh, même bu des jàppaat nañu sax dañuy wax beneen date mais il y a des pertes qui sont déjà là la nga xas ba dugal ci avance ci acompte mënatoo ko génne waa ji da koy téye te bu dee décalé nañ même bu ñëwee boo ñëwee pour compléter sax euh, moom porter un ko préjudice déjà les mu war a def du ko mën a def normalement c'est pourquoi il décisions yi balaa ñu ko jël war nañ aspect économique bi encore yu muy indi ci ci population bi bala ñoo ñoo ñoo ñoo jël. dina mëna nek nekk métier tamit ci candidat yi parce que ñu melni concessionnaire auto yi par exemple bo len louer li nga xamantene ne say auto par période de campagne bi euh, jox jot leena jox euh, l'intégralité de la somme qui euh, di concessionnaire bi du la ko delloo. non du la ko delloo. Euh, mënuloo ko sax delloo parce que def na ci déjà des dépenses jël na ko peut-être euh, réfectionné waat oto yi jëndaat yeneen oto yoo xam ne da ko dolli pour que yow boo ñëwee mu mën la euh, jox offre ba nga bëgg hmm. hein? malheureusement loolu yëpp c'est dans l'eau actuellement parce que nous sommes dans un moment de précarité kenn xamul ndax ren 2024 bi la def élection yi wala 2025 moo tax nag war nañ cee jublu très rapidement bu ko defee ñu revenir à la situation normale à la normalité Euh, pays bi am dal am calme économie bi mën a redémarrer

Euh, je pense que nous avons aujourd'hui une situation inédite euh, depuis avant les indépendances nous ñëw au Sénégal nous report euh, des élections ak tension bi compliquée et que ce soit la presse que ce soit comme il l'a dit le secteur informel parce que nous avons ko waxee nous gis campagne amna ci de petits entrepreneurs yo xamni dañuy yoré sen ay mbouss di jaay nit ñi ñi crème ñi leneen lool daan na leen indil dépense donc secteur yëpp la laal secteur presse bi tamit dañuy préparer wu élection yi bu ñëwé comme niko doyen waxé tout à l'heure ñak ñi ñuy ñi ñuy ñi ñuy euh, yónni donc de ce point de vue au-delà de l'aspect moral au-delà de l'aspect éthique bi nga les gens ne comprennent pas ce report l'aspect économique a une influence directe avec la population et lolu dafa nekk qui que ni tey ñun ñëpp ñing koy parce que la presse aujourd'hui bon, on euh, le président qui euh, Ibrahim Lif, il a perdu 8 millions, il l'a perdu mais euh, Fumuko mu koy donc le lieu c'est des questions yoo xam ni war nañ ko poser et que nous am ci jàngat. surtout que dañ ko ajandi te bi. waaw la mais war nañu xam parce que le conseil constitutionnel a été clair par rapport à ça moom bëgguma ñuy naan peut-être du am parce que en fait les décisions du conseil constitutionnel sont na te avons respecter le droit euh, respecter respecté régir je pense que que euh, nee na day dialogue d'ici deux jours dinañ indil une date bo xamni bu boba yaakaar nañ ni peut-être duñ ko duñ ko mais Famara peut avoir raison. Mhm. Euh, parce que tay bu fekkee dialogue bo xamante dañ ko bëgg def. Euh, mhm. dinañ dellu si war sax ci dialogue bi. Mhm. mais ñu convoquer les candidats spoliés. Euh, ba paré convoquer les candidats retenus par le conseil constitutionnel mu pense que euh, les candidats nee duñ téw ci dialogue bi kon xel day téy ndax est-ce que euh, dina am ci 2024 en fait la question est est-ce que dialogue war na am parce que je pense que spolié ou pas spolié le conseil constitutionnel a fait qui bi nuñ ko fegg bi wax ba ne des les candidats donc aujourd'hui en sortant sa décision par rapport au recours ñu sommes ko dans les meilleurs délais choisiral date choisir date je ne pense pas que mon c'est hyper compliqué mën nañu les candidats proposés nous ñi l'administration nous avons euh, date bi Sénat DGDE etc. ñu la faisabilité ñu xam nuñ koy fait. parce qu'à partir du 2 avril le président de la République manda jeex dirna. donc daf ñuy la ci euh, flou boo xam en réalité compliqué maintenant les candidats spoliés euh, à mon humble avis euh, démb maa ngi koy maa ngi koy bind sax. Euh, en 2019, il y avait des candidats qui nga xamni ni len jall ngeen parrainage mais mënoo jallo len parrainage et pourtant indiwul en réalité crise bi nga xamni parce qu'en 2019 les élections il y avait le parrainage lors des élections législatives il y avait le parrainage ñi motal ñoo dem ñi motalul dañoo toog donc moi je pense que c'est une euh, stratégie entre guillemets pour maintenir le flou bu parce que en réalité ñi nga xamni ni lañu retenir il peut faire une proposition FENAC a, l'autorité de candidats en les candidats en liste mais Guissouma, Ningahamni, ils disent qu'ils ont été spoliés lan lan lan en réalité euh, indi lu bees dès l'instant où dès le début ils ont accepté le jeu et que bi conseil constitutionnel bi di joxe en réalité la liste des candidats ku nek dem nga compétir nga ñu né ñi jall nga ñële jàlloo. d'accord ñu ñëwaat tuuti ci rapport bi doyen baal ma ñu ñëwaat. Aïda waaw xaaral ma laal. allez-y wa xam nga Aïda légui ni bi nga tambalé sa tàmbali cadeau mhm. dañ la laaj nga né tay dëy la. ba mhm. paré un brin de sourire au mhm. coin. pourquoi nga wax loolu parce que depuis 1848, c'est la première fois dans l'histoire politique du, du Sénégal, nous avons euh, reporté nos élections. Euh, pour moi, arguments yi c'est des arguments à mon humble avis parce que n'ai pas la vérité absolue qui ne tienne absolument sur rien parce que si nous avons une crise je pense que nous devons avoir xam crise euh, institutionnelle xam crise sociale pour repousser peut-être dans le cas extrême nous devons reporter l'élection. yi ñu une euh, commission euh, parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour poursuivre entre guillemets des juges la mm. commission est instant gis nañ ni donc aujourd'hui li comme argument en réalité taxawul et bu nous c'est un deuil euh, de de de de la démocratie entre guillemets moi. en 2011 nous on s'est battu contre un troisième mandat mais malgré les démarches yu pour dire il faut une transition un an deux ans je pense que vous en rappelez il a il a tenu à faire ces élections là en 2000 j'étais toute petite <laughs> j'avais même pas 10 ans mais je me rappelle que en fait le président Abdou Diouf malgré crise malgré opposition la marche bleue malgré l'Oliop, ils ont tenu les élections euh, je rappelle que dans les années 88 euh, euh, ci lima histoire malgré tout les gens ont tenu des élections donc man gisuma fi aujourd'hui lan mo wara tax ñu reporter ak lan on wara tax ñu bëgg def suñu bop ni que y a un flou et que obligatoirement peut-être même élection de am 2024 et c'est pourquoi je dis que nous sommes dans un deuil parce que le citoyen sénégalais le seul arme ben arme bi am ñun ñëpp c'est pas d'aller dans la rue et de faire des manifestations c'est pas de casser c'est pas de crier c'est que à une date échue bi nga xamni mom la constitution bi wax ñu jël suñu carte ñu dem voter et que ñu tànn ki nga xamni yaakar nañ ni moy mëna a dinaa légui ci euh, Famara Ibrahima Cissé Ibrahim Cissé xamna amna na lu mu bëgg wax waye euh, Aïda qui parle avec beaucoup d'émotion mhm. Aïda que euh, ci Khalifa président mhm. nan ngeen dundé bi les report euh, niñ ko avec beaucoup de de de déception parce que bu il y a des euh, y a des qui euh, des conséquences au niveau de la presse au niveau des concessionnaires au niveau du secteur informel au niveau des candidats qui étaient déjà prêts et je précise encore une fois des candidats qui étaient déjà prêts des seen comment dirais-je. C'est une organisation pour des petites élections. mobiliser iPhone. mobiliser iPhone, mobiliser en fait nigne des scènes agenda de tournée Paré nous demain euh, on avait un meeting qu'on devait faire au niveau de Dalifort nous euh, la veille à même pas 10 heures de l'ouverture de la campagne on nous parle de report alors qu'on avait des des camarades qui étaient venus dans tout l'étendue du territoire pour un peu en réalité féquer l'ouverture de la campagne électorale déception dans le sens où le président Khalifa Ababa Sall qui est aujourd'hui notre candidat 2019 euh, Rennes excusez-moi, 2024, euh, nous paraît rien que pour à des élections, avec des propositions, avec un programme, nous beaucoup nous en fait, il y a un flou, ça, et je pense que ça, véritablement, c'est dommage pour les candidats et c'est une déception. Et euh, nous euh, nous mesurer dans le sens où le Sénégal a toujours, au-delà de nos propre position partisane le Sénégal dans le monde entier d'ailleurs, mës en fait exemple de démocratie surtout en Afrique et que Taïbo des sur les réseaux sociaux nga pays à la limite ils disent que aujourd'hui c'est les donneurs de leçons à qui eux ils doivent donner des leçons de démocratie je pense que c'est un recul et yo, ci yi ñuy en en en en tant que pays a fait, a fait, a fait avancer en termes de réflexion, en termes de proposition, mais aussi en termes de démocratie. D'accord, merci Aïda Sopignan. Le temps may joxat euh, doyen Famara dafa melni amone lo ci bëggon yok. Waaw, luma ci bëggon yok euh, moy xam nga incertitude flou. Mm. Euh économiquement y a un impact lourd bu Investisseurs, surtout que report bi liko entraîner moy dañ né corruption mais il y a des investisseurs qui les juges sont corrompus euh, le premier ministre ou bien les ministres sont corrompus dans l'impunité totale Investisseurs du nous. donc c'est un mauvais argument pour l'économie de ce pays le fait qu'à la face du monde ñëpp di c'est un premier ministre qui a corrompu des juges moo ñu reporter mais quand même économiquement. du conseil constitutionnel. des juges des juges parce qu'un un investisseur bu je veux une bonne justice. Mmh. effectivement c'est l'environnement des affaires. parce que juge si les juges sont corrompus Il y aura des investissements ben ouais ne na ko ba du yegg donc ça pose problème. Euh, question que euh, je poser euh, parce que dama La coalition Khalifa président di wax ni ñoom dañuy Ça ça leen ouais dañuy dialoguer

parce que nit ñi génne nañ seen xaalis banque yi mu ngi seen biir kër yi xaar parce que y a une incertitude pour en cas bu pénurie amee mm-hmm. inflation des gën a am euh, day bu am inflation amee ñu mën a jënd pour lu ñu commerçant yi dañ seen produit ah oui euh, Aïda waaw Aïda xam nga man am na lenn lu ma leen bëgg a laaj mooy bi décret président amee euh, ñu ne reporté nañ élection yi yéen dama gis coalition Khalifa président mais teewul ñu ne élection yi amul mais yéen da ngeen doon mel ne ku bëgg a forcer nekk ci dëkk bi def ay caravane ba nga xam ne sax daan na am ay bis bii wala ay heures yu doon am yéen ak force de l'ordre yi est-ce que yéen politique yi itam seen démarche waru leen a changer un peu de comportement parce que man yaakaar naa ne dans une démocratie nit war naa mën a xeex li mu yaakaar ne xeex na ko Euh, parce que finalement économique en fait damay quand le président de la République a fait son discours. disant que day abrogés euh, convocation au corps électoral à aucun moment il n'a été écrit dans le journal officiel cette décision. après les dogues ben deuxièmement euh, c'était au conseil constitutionnel de valider ou pas le temps que conseil imaginons que nous créons le conseil constitutionnel vous allez en campagne le 25 février. Euh, les élections vont se tenir le 25 février Il y a sa kër des fausses campagne parce que nous étions en campagne électorale euh, le droit de circuler le droit de de faire connaître son candidat à l'instant T Lors montant la coalition Khalifa président et les candidats qui ont été retenus parce que je rappelle que ce jour-là de l'ouverture de la campagne beaucoup se sont donné rendez-vous au niveau de euh, vers euh, le, le cimetière Saint-Lazare sur la ñëpp dem fa. parce que buñ leen bàyyi woon ñu dem euh, def seen campagne. li may wax rek euh. ñoo gën a mujj de mooy fan yii rek. li fan fan on était dans une. Yoff par exemple on était on était à Yoff parce que le conseil constitutionnel a sorti une décision en disant que. Euh, la décision bi nga xam la bi nga xam assemblée nationale voté na que c'était nul et et et que taxawul. mu ne au président de la république de choisir une date dans les plus dans les plus brefs délais. dans les meilleurs. dans les meilleurs délais. dans les meilleurs délais là on est en train de nous poser même les questions ndax meilleur c'est le futur euh, <laughs> donc il s'est posé la question est-ce que les élections vont se tenir le 3 mars ou le 10 mars. pour respecter en réalité les conseil constitutionnel en lui disant que mon au-delà du 2 avril en termes de de mandat raison pour laquelle étant à Dakar et attendant la décision en réalité du euh, président de fixer une date nous on a constitué notre campagne électorale et malheureusement je le dis en toute humilité euh, euh, les forces de l'ordre n'ont pas été impartiales parce que Dimbo, comme ni quand les jeunes de la paire ont demandé à faire une marche ils leur ont donné l'autorisation. Avant de donner, ah, attends, ils leur ont, parce que eux, pourquoi c'est quand eux, ils ont demandé à faire une marche, les nous d'or autorisation On peut se poser. parce que mhm. avant que je nous appelle, ils demander pour des marche. Quand même, nous avons en Sénégal, nous avons marche pour que chaque mois demandé de faire civiliser. Mhm. Moi, bien fait faire cette marche silencieuse, bon, nous avons. Nous avons élection. Nous avons élection. Mhm. Nous avons amul kaas amul dara ñu paré ñu nettoyer fa dem. mais dans une démocratie sax lolu mo fa wara dans une démocratie. il est dit. que quand tu veux faire une marche. tu ne demandes pas d'autorisation. tu informes attends tu informes l'autorité. tu l'informes pour que mon modèle jël ay mesures. ñëw encadrer. et on a vu que. Euh, depuis quelque temps quelle que soit l'information bo jox autorité yi dalay lay non. parce que tay tay tay tay fof lay ñëwé tous ces manifestations tous ces manifestants. entre guillemets sont des gens civilisés. parce que à un moment donné aussi li nga mom buñ la ko jël tu as le droit de revendiquer loolu rek mon fi mais mais Aïda pourquoi xam nga man l'a laa mënul a comprendre. Mhm. Euh, te loolu laay reprocher les politiques au Sénégal. Mhm. c'est-à-dire que man mënuma comprendre. Mhm. Euh, que réew buñ ci la démocratie. Mhm. c'est pour pacifier les rapports dans l'espace public. Mhm. Euh, nit ki. c'est pas parce que da nga war que da nga man damay dégg sax ñuy argument bon, par exemple way bu autorisé dara du am bu ko autorisé wul cest que marche dans une république buñ la violence multi ci amul mhm. c'est-à-dire que li may faral loi il faut que am les politiques culturelles provoquer le contentieux c'est-à-dire que tay, bu faites que am la loo ou ne am saisir les juridictions par exemple une marche même bu que la constitution dit que régime déclaration la nek. cela ne veut pas dire automatiquement et systématiquement marche bu ñu def dañ accepter parce que aussi dama xool le Sénégal depuis un certain moment nit ñi dañu bëgg chaque semaine wala deux semaines ñu def marche parce que tab marche boobu les forces de l'ordre man gisaguma Sénégal ñu jël ay robots yu yor sécurité ay nit lañ donc des fois tam man je présume que dañu wara sonu dañu wara nangam est-ce que du jar des fois même buñ leen la marché bi c'est pas autorisé ngeen jéem attaquer bo euh, arrêter arrêté. la moi man man systématiquement ngeen dem di je pose une question il y a pas longtemps il y a quelques semaines. le candidat du pouvoir. def na fi ay tournées non beaucoup non at non xaaral rek parce que xam nga moom dafa am fonction il a une fonction administrative et une fonction politique attention Amadou Ba actuellement ak c'est le premier ministre du Sénégal mhm. donc bu fekkee ne quand même nag waxuma ne des fois plus parce que man bañ naa le premier ministre Amadou Ba travaille pour le candidat Amadou Ba non là ko formuler mais aujourd'hui ban préfet wala ban mo meuna interdire au premier ministre qui est une haute autorité administrative du Sénégal muy def ay activité waaw des fois li leen ban ban ban préfet ban préfet je je je continue ban préfet mooy interdire le maire de Dakar qui est une autorité à faire une activité parce qu'une loi elle doit être euh, nu koy pour tout le monde mais maire de Dakar a plusieurs reprises fi bëgg na génn ñu ñëw téye ko këram ne ko doo génn fii les vidéos sont là nous sommes tous prévents. Et l'administration l'a fait. La dernière fois, je, termine, je, terminerai. Parce que Boudé est détaché par rapport à sa fonction de maire, le premier ministre, les tournées qu'il fait avec ses militants, non, non, mais on, on sait pertinemment ce qui se fait parce que quand même euh, on sait lire et on sait interpréter télé images imagine tu à la limite c'est des meetings qu'il fait donc vous boudé day détachement tous les citoyens naissent libres et égaux et cette égalité là dañ ko ressentir même sur la manière bi nga xamni autorité la dernière fois qui a dit à la gendarmerie que le maire de Dakar n'était pas là pour faire une tournée et pour voir les Dakarois on était au niveau de Anne Belair et avec une arrogance le ñu parce que bu dee dañu suivre yow logique bi ngay def ni yépp képp ku am euh, une euh, ñu koy une fonction administrative waruñu la arrêter alors que dañuy gis ni dafa am samba am euh, non dam da nga né le premier ministre Amadouba, Ba gëmoon ni par exemple war nañ ko mëna dem di ay fonction alors que les tournées qu'on a vues c'est des tournées politiques Manila, que les citoyens c'est une perception quand même majoritairement partagée. mais est-ce que daf la explique que, expliquer que Amadou Ba dafa am double casquette. il est euh, candidat le maire de Dakar dafa am double casquette. mais beaucoup ak euh, le euh, beaucoup parce que le maire a été élu le maire a été élu le chef du gouvernement a été nommé.